jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontante ak mbégte jàkkaarloo waat ak yéen mbokk yi ñu ngi fii ci Rock Énergie seet fi kenn koo xamante ne xale la waaye comme wasaare làmb xale yi la fi nekkal génération bi nga xamante ne làmb dañoo am ci ñoom yaakaar ñu ñëw seet si ko muy Rawane 2 bu Rock Énergie ñu seet si ko xool nan lay waajalee ba xam am na combat wala amul combat lépp fii lay xewee ci wasaare làmb Serigne Bassirou yaa baax Gueye Fatou Sikam yeri ngor ka haabo meri dereta wasam Gueye andana wina khadi khona wasam gey faatu sikaam deri gorka bo meri dereta wasame andana wina khadi khuna wasam gey faatu sikaam deri gorka bo meri dereta wasame andana wina khadi khuna wasam gey faato sikam deri ngor ka haabo merin tere tawasame damam nyala tamala boso de banyilan musa ndofin bo khada lankembise damam nyala tamala boso demañilan Musa Ndofène bo hada lang ebise tamam ñala tamala bo sox demañilan Musa Ndofène bo hada lang Demanyilan musando fin bohada lang ebise. Layang si magwa sogajot si malsak. Pirma kendo kinderingel na yam chusana dorapele. Layang si magwa sogajot si malsak. pilmaake ndoki ndeeriŋel na yaam cosaan na no raftele sëriñ mi noo ngi lay ziyaare Mbàkke nangul ñu ko borom daaru saleer gi fi lay jóge di tas di dem fu ne sëriñ mi noo ngi lay ziyaare Mbàkke nangul ñu ko borom daaru saleer gi fi lay jóge di tas di dem fu ne kalama naag waa Wassare Lamb maam coono borom daaru Noreyni mu taal leen def si yéen lu gën si darajay Seydina Ousmane Mbacké Noreyni jaajëf borom Wassare Lamb <laughs> yow tugal àdduna jamono ji yëng xale bu yëngal lamb ji dangaa ngaa ñëw bomb kalat toj lamb ji ak Wassare Lamb moom non tout est possible. seetaan Wassare Lamb. laay ñàkk ko seetaan mu see ci àdduna ak mimi réew fi ñu toll fi réew mi toll nii non xëccoo ko kenn. noo ko gisee noo gisee wasaare. wasaare lamb waaw naay sant yàlla innovation bu rafet la ak tur bu mu indaale si lamb sax wasaare lamb ba pare en même temps mu ngi appliqué tur bi wasaare lamb tuddul bi nit ñuy toog seen télé yëpp xam nañu wasaare lamb indaale na turam si lamb. la ñuy toog. waaw foo ko santere rek ak noo ko bëggee. yaay xool foo toog waaw lañ seet yaa ñuy dalal. waaw gis nga maa ngi dalal waaw mais xam nga la laa lay fekk suñu toog waxtaanee làmb daal incha allah. amul ragal sëñ Bas ñu xool nañ ñëw ni ràcc ci puna bi. mooy yoon. mbokk yi jërë ngeen jëf kon niñ leen ko waxee ñu ngi fii ci Rock Énergie seet si fi xale boo xamante ne macha allah am na lu ko yàlla may ci làmb wala am na lu muy wane ci làmb tamit boo ko gisee xam ni mbër la waaye fan yi dafa am ci loo xamante ni moom lañ doon waxtaan ak man ak moom muy rawaan de bu Rock Énergie ma seet si ko bëgg ñu waxtaan xam rawaan fan la jóge ak fu mu jëm ak ban avenir la am ci làmb rawaan maa ngi lay nuyu. jili wasaare làmb maa lay fay di la ziar di la kontaane di la jaajëfal si liggéey bi di nuyu sa caméraman bi di leen bëgg bu baax a baax di nuyu àdduna di wax bisimilah néew la yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ginnaaw ma sant yàlla julli si nit bi maa ngi nuyu sama waajur bu jigéen di ko ñaanal suñu borom may ko fan bu gudd di ñaanal sama waajur bu góor fu mu tëdd gënal ko fu mu jógee ci barke Seydina Mohamed ak képp ku am waajur buy dund yàlla na ko yàlla taxaw may ko fan bu gudd ba mu fekkee njëriñ njaboot képp ku am parent tamit bu génn ñu la koy ñaanal suñu borom xaaree ko àjjana ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu laay nuyoo wasaare lamb noonu laay nuyoo axlu lamb ak Sénégal ñëpp incha allah rabbi. Roane foo nekk. waaw man maa ngi fii parcelle maa ngi Rock Énergie waaw maa ngi sant yàlla bu baax maa bii biir parcelle fii di liggéey toog sama ruq jàpp sama ñaambu ànd ak ñu ma war a àndal di liggéey di xaar suñu borom ñëw. ñaata combat nga bëri arène. man instant bi bëri naa neuf combat arène su ma Euh, sama premier combat maa ngi bëreeg Burutan sama deuxième combat ma bëreeg G bu école guy gi. maa ko daan ma bëreeg euh, sama troisième combat Kala Thérèse sama quatrième combat Mbay guy gi bëreeg sama cinquième komba ak Moustique bëreeg sama sixième komba ak euh, Baba Ñoon Junior septième combat kii waaye Demba Coobu Yoof huitième combat Jackson neuvième combat Zoro. waaw Zoro nga mujjee bëre. waaw Zoro laa mujjee bëre waaw ñaata victoire ñaata défaite. waaw da sama premier combat daan naa Bourdane maa ko daan sama premier combat sama deuxième combat ma daan G sama troisième combat ma clé 13 may bët sama fes laa ñu jox victoire par avertissement arbitre am la ma defar waat jël mbay guy gi daan ko jël musique musique daan ma. si laa jëlee Baye Mandione junior ñu mos niil ñu jox victoire par avertissement si laa jëlee Demba Thiaw bu Yoff daan ko après si laa bëreeg euh, Jackson ak Zoro ñaax si. waaw mais ci ñaari defet nga ci waaw si ñaari defet laa jógee di ñaan suñu borom mu yem fa. ñaar wala ñett ñett. non ñaar la. <laughs> parce que yaag Baye Mandione Junior yaag Baye Mandione Junior da nga ne baay Baye Mandione daanoo ko mais keroog bi ngeen di jógee ci ci làmb ja arbitre ba loxo Baye Mandione Junior la yëkkati nga ni Baye Mandione daanu la. Baye Mandione keroog bi muy tudd palmarèsam bokk na ci li la metti mu ne daan naa rawaan deux bu parcelle nga woo ma ne ma rawaan man daanu ma Baye Mandione daanu. musuma daan ci àdduna te noonu la demee sax combat wu Sam moo ko tëggoon maa ngi koy nuyu au passage di nuyuwaale promoteur yëpp ñoom Pa Adou Fall ñoom Prince ñoom Fallou Ndiaye xam nga ñoom Dieye Sène xam nga ñoom Ñambur production Grand Diaw xam di nuyu promoteur yi si làmb yëpp xam nga mais demeewul noonu quoi si amee comprendre Sam moo tëgg combat may préparé ba bis des ay deux semaines sama rakk bu ma bokkoon ndey ànd xam nga tey ku am dëj mënoo préparé combat te koo xam ne sa raq la sa deret la xam nga fu may waxee combat des deux mu nelaw si amee comprendre aw courage xam nga gan yaa ñëw si gën ndigaale yooyu noonu xam nga fu ma waxee ma ne sama sama ménagère xam nañ jéem a xool nu ñu wax waxtaanee promoteur yi mu rapporté ñu làmb ba jàppal ñu ko beneen bis ñu bëree ndax échange yi dama nekk si ay difficultés yu doy waar xam ñu ni nag ñoom mënuñ ñu baal loolu na la yàlla suturaal te ba par avertissement lañ ko joxee victoire moo tax ba mu defee sotti ne da boole ma ci palmarès ma ne ko man bokkuma ci sa palmarès parce que yow ma dañ la yëgëri sa loxo par avertissement. rawan loolu ànduma ci parce que mënoo leen de bëree yéen ñaar mu génnee la par point arbitre jox ko victoire nga ni daanu la daanu la wël mi waaye daan na la ci arbitre ci règlement wu CNG boo demee bàyyi ma ñoon junior moo daan rawan 2 non kooku moom sax du sori si yooyu ay waxam ndax Baye Mandione Junior nekkul jil bi parce que man ku jógee si dëj entraîné wul deful dara ñëw dëggal boppam ah nga mas nii rek moom ñu jox la visa pour pour man bu nekkoon sax lutteur dëgg la xam nga war na sax taayee toog sax di ko tudd ñu tourné page Baye Mandione ñu nekk si leneen parce que am na leneen lu nekk suñu kanam am na si luñ jógee am fu ñu war a dem c'est comprendre suñuy fans di ñu xaar suñuy am di jàmm du ñuy xaar suñuy xarit ñu ñuy jàppale te yàlla tax ñëpp du ñu xaar comme instant bi ñu ngi si beneen sommet bu ñu teg suñu bët incha allahu rabbi mais du question la ay kii daan ma kii daan ale boo gis am na retour waaw ñu nekk si kaw ñëpp bëri nañ ñaar yoon comme tey ku ak ñi ma daan ñëpp nañ suwoon revanche mun na am waaw man ñi ma daan maa ngi xaar seen seen revanche man ak ñoom man tamit ñi ma daan maa ngi xaar sama revanche ak ñoom loolu mooy la sa combat yow ak Zoro nga bëri bi nga bëre ba ñàkk combat bi ko yëpp say wala ñi la indi woon ci làmb ja nga yëpp. foofu noonu dama ciy jégalu samay supporter ñëpp parce que tamit rawat nekkul même porte kii mbër moo ko war a man dama bokk si làmb bokk ci xale yi nga xam ne dañoo am ci ñoom yaakaar ëllëg ñu téye làmb comme tamit am na jël yoo xam ne su ma ko daa su ma ko daanoo rek bu ci nit ñi waxul rek man war naa def nit moom dafa jaaxal samay supporters yëpp waaye maa leen ciy jégalu di wax ni làmb moo demee noonu jox naa làmb ji axam préparé ko ci fulla ñëw dëggal sam bopp xam nga def fugu de jeunesse suñu borom def erreur ma ñàkk te ku juumul tamit doo daanu ma koy félicité di ko ñaanal victoire bu jikko man dinaa seeti leneen te incha allah rabi sam place ci làmb histoire tiendra lay doon dama koy jël incha allah. boo xoolee sa diggante yi ak waxtaan wax dëgg ca la état de forme bi nga indi ak état de forme bi nga yor nii Rawane kon entraîné woon ci combat boobu. si combat boobu noonu xam nga xam nga rek ndeysaan ndax stress yi day bëri ndax yow imaginer tey xam nga man dafa am lu lu rëy loo xam dafa jóge si man te loolu noonu xam nga amoon na lu mu jiyee sama moyen mooy sama dese rakk bi xam nga nga am sa rax bu ndaw xam nga mu yaakaar làmb xam nga seen famille ñëpp yaakaar ko xam nga mu tuddee mu tuddee ma boppam Rawane Junior xam nga fu may xew ma am si moom yaakaar moo xëy un jour rek xam nga mu dem nii ndax ma si ay. waxi kese xam nga jëm ci làmb. fu ma jëm ci làmb si samay morom rek. parce que tey du ma fi toog di tudd sit benn mbër parce que mbër boo fi tudd day jàpp ne yow da am foo ko dugal wala da ko waajal xam ay xale lañ dañoo nekk si liggéey bi mu jaral ñu bàyyi lépp ne làmb la si amee ko am ñu lu làmb xam nga di entraîné xam ku ñu laam boole ñu jël la wane la ñun xam nga tooguñu suñu xul yi nelaw ñu ngi liggéey waaw. su ma la su ma la laajoon di nga ma mën a wax ñetti mbër yoo xamante ne yéen ñaar ay adversaire ngeen wala ñett ñooñu yaa ngi ñoom làmb ju neex. waa yow kan la sa kan la sa xel kan la sa xel ñëw si booy. man du ma promoteur te tëgguma làmb man xamal la làmb yor sama micro bi rawaan dóor na ko jàpp na ko daan na ko ba loo làmb wala door nañ ko jàpp nañ ko daan na ko léegi yow yaay wax combat yi nga xamante ni xam nga ni ñii man ak ñoom combat bu neex. ko waaw ñoo xam ne làmb bool nañu wax dëgg fa yàlla su fekkee ndox ma sama bopp rek. maak Abou Ndiassé eh, xam nga tëkku ma ko nag quoi mais damay wax combat yi logique quoi maak Abou Ndiassé bu Lamsaar combat la. Abou Ndiassé ku taxaw ci kawam da koy rey laajal Moustapha Gueye deux barki dem daa wër stade bi wër stade bi ba daw génn laa duma sarax saraxee sama combat. sama copain maa lay siyaar. jili da nga ne Moustapha Gueye ne rawaan rawaan ak ay feebam <laughs> du mës a jeex Abou Ndiassé nga may wax nii de loolu du ay fo na jël combat bi rek. bu jëlee combat yi man ak Moustapha Gueye dina xam ne am nañ différence parce man xale laa te mu ngi si daan di dégg lu ne xëy na xëy na loolu moo mu bëree noonu mais man moom su taxawee du demee noonu comme nu moom Moustapha Gueye du mu demee dëggal sam bopp wan ni ko man ndaw laa taalibe Serigne Touba fulla ak Thierno borom daaru bëreeg moom ci fulla. Abou Ndiassé de ku koy yeb ci ginnaaw làmb ji nga ko yebee waaye ku wéet moom ci stade bi nga xam ne Abou Ndiassé moom champion la ci làmb rawante nga seet li ngay wax. waaw champion champion moo koy ndaanaan ndaanaan na koy daan champion la man loolu moo tax sax ma bëgg bëri ak moom parce que dama gis mu nekk xale bëgg lu muy def xam nga di dëggal boppam te man tamit noonu laa noonu laa mel damay day jeexaat moo tax ma ni combat bu baax na su tamit ñu seet leneen moom kese nekk abu jàppoo ko nga lambaat kan ma dem si Aliou Junior rek ndax mbéy gu gi maa ko daante moo daan Aliou Seye Junior sama comprendre comme foofu noonu lamb mun na faa taxaw neexee fa maag moom bu ñëwee ñu neexal ko de Alioune Seye junior men. Alioune Seye junior du ay foom laa lay tegal nii. ki démb la jugee ci Tafa Mbër. moo waay déggal loolu kooku Tafa Mbër lekk rek la ko deful maa la wax loolu. si réew mi toll nii non Tafa lekk rek la ko deful. non mais keroog làmb ja ñoo nga fa woon Tafa moom xam nga ni dóor na damb na am na ndam champion balay woo nga bañ maa jël door na damb na am nga ndam CNG jox lañ ko victoire. waaw gis nga di ko féliciter si victoire bi xam nga waaw di ko ñaanal yàlla na ko victoire bi jik Aliou Seye junior ma koy wax mu dëggal boppam ñëw jël ma xam rek mu defaraat ko bagage rek mu déggaat di courage rek fii toj loolu rek. bu dul Aliou Seye de. Mbaye Diouf mu ngi fi. Hmm, grand day neex. <laughs> waaw. Mbaye Diouf biñ fekk euh, grand mbay dégg nga booy de booy da di toog ngeen di laaj seen grand yi yaakaar ne ah grand yi jeexaluñu mbay guy mbay Diouf maa ko gis barki démb fekk naa ko presse café ci signature contrat mbay guy gi ak maam Balla top 5 gis naa état de forme bi mu yor ku yaakaar ne entraîné wul yaay nax sa bopp. Hmm, man moom mbër balaa may neex dëgg sax ma jël ko mu am état de forme mu nekk si doole ma bëreeg moom man loolu laa man ma bëreeg mbër bu nekkul si si forme man mbër taxaw nekk si état laa bëgg bëri man loolu moom dafa bokk si man ba tax na moom xam na ne na yokk ay entraînement te may ma chance xam nga xale laa yor ma chance loolu rek la mais du question la dara bay na waaram champion la di ko ñaanal bonne continuation xam nga ñun tamit ñu ngi si suñu sommet ñu ngi suñu yoon xam nga waaw grand compte petit bi daal day fay. promoteur yi promoteur yi ñu ngi lay ñu ngi lay contacter. waaw promoteur yi ñu may contacter di ma wax ay combat macha allah moom promoteur yi moom ñu ngi may contacter waaw bu baax sax. combat yi jàpp nga ne ren di nga bëre. waaw parce que tamit jaam pexem yàlla ak dogalam.

di bëree chaque année bañ def année balance. ana waaw Modou mu ngi fi mu ngi si jàmm actuellement ñun dafa voyagé waaw ñu ngi koy nuyu au passage di ko ñaanal jàmm di ko wax roi des bi yàlla na yàgg si ay loxoom te jikko incha allah rabi. Ama Balde nee na mafia bi ku ci bokkul. xiir bi dalay dal xiir bi fi mu toll nii xam naa ne dal na mbëru parcelle be Papa Sow ku weddi laaj ko. xiir bi dal na ko nee na ci Modou Lo la koy diwaat daa mel ni àdduna moo demee noonu gis nga tey làmb dafa nekk dafa dafa léegi làmb kii la slogan la léegi da ngay gis kee naan niin si batt sum sum tafa bu la jàppee ba bàyyi la nga niin si batt xam nga est-ce que comprendre Ama ñëw ak ay xam nga caw sa xiiram mais tamit loolu su wax la rek mais nekkul loo xam ne loolu mooy nekk si làmb ja comprendre la maa ngi koy nuyu au passage xam nga dafa jaar si somem si Modou Lo est-ce comme làmb boobu làmb neex la xam nga di ñaan suñu borom xam nga yóbbu ñu si ak jàmm ak salaam may ñu kattan ak tal ak fekkee ba ñu fekkee ko jàmm Modou yàlla may ko ndam parce que Ama dugg na sama kër këpp suñuy reer daan sama mag est-ce que comprendre waaw comme tey xam nga su demee tey ba war a bëreeg Modou Lo tamit xam loolu mooy xam rek waaw Modou mooy jël revanche Baye rek jël revanche Jos jël revanche Papa parce que tamit dugg na passé am nu mu fi def comme tey suy bëreeg Modou Lo bu ko kenn xeeb man maa jaarale si wasaara làmb nii di wax Modou Lo sama grand nga sama xarit nga sama lépp nga combat bi nag du combat bu ndaw du combat bu boo xam ne lu ñuy xeeb la jox ko cër waaj ñëw yàlla may la si ndam incha allah loolu la lu ma lay wax bu buñ topp ñaan ay no grand compte peut-être du yoon Ama Baldé ak Modou Lô bokkuñu promesse dëgg léegi làmb dafa dafa innové léegi làmb léegi du biir day xëy rek du wësin day xëy rek biir est-ce que noonu la demee ba tax na Modou Ama làmb bu neex la te ñu ngi ñaan suñu borom daal promoteur bi ko tëgg muy Luc Nicolaï nekk si ay loxo yoon xam nga xam nga ñu ngi koy ñaanal jàmm di ko ñaanal képp borom jullit bu nekk foofu si ay jafe-jafe nekk si loxo yoon ñu lay ñaanal suñu borom saafaral la say dossier ba nga génnaat nekk si population bi incha allah rabi waaw. sëñ Bas liimal Ama Balde euh, ci Zos la commencé ci ci ci magam la njëkkee bu daw def États-Unis buy bàyyi pël ci boobu la njëkkee boole la ci Zos teg la ci Papa Sow nee na Modou daal war naa xam. ban relation la am ak mbëru Parcelles dafa am wax bu am importance bi mu Ama de wax dafa bëre premier combat am arène moo Ousseynou Ndiaye toog ci palateau bi na ma sama siège waa parcelle ñoo ma tax a jóg waaye la ba tey jugu ci de. waaw tey siège am nee la ko teg waaye loolu garaawul que lu ma la wax rek laay ñëwaat tey wax moom. dafa nekk loo xam ne day neexal day day neexal day neexal ay mbir quoi xam nga fu may waxee mais tamit xam li ngay wax tamit quoi dëgg la kon ko nee dafa jël séesam teg ko parcelle xam nga fu may waxee te boobu ba léegi lu mu waxoon jugu ci loolu ngeen gis. mais ñu mu doon bëreel ak Modou Lo bokkuñu istamé boo nee Jos am na différence ak Modou Lo nga ni Papa Sow am na différence ak Modou Lo nga ni Baye Pul am na différence ak Modou na jàpp ni si Papa Jos ak Baye Pul lu si Modou xarañ loo xam nga waaw làmb boobu daal làmb bu neex la incha allahu rabbi ñu ngi siy ñaan jàmm ak salaam daal ba promoteur bi dellu si tëgg kook jàmm mu am. incha allah noo gisee wasaare làmb. waaw wasaare lam moom xam nga mu ngi fay normal mu ngi fay prix parce que yàggoo leen fi ñëw mais xam nga yéen a ngi béy seen waar si làmb bu baax a baax a baax instant yi làmb amul ku leen xamul yéen wasaare làmb xam nga yéen ngi ñëw def seen i jéego yu baax macha allah boole woo leen dara ki wax da ngeen di liggéey toog seen rukk xam nga di jël ndaw ñi di leen may chance xam nga di wax ndaw ñi si luñ nekk xam nga di fàttaliku nit ñi ki diw bëri naag diw bëri naag diw loolu ñun mbër amul seen fay amateur yi ngeen liggéeyal yéen parce que amateurs yi xamuñu ñu si ñu nekk lamb ba la ñuy gis mais tey boo leen ñëwee jël suñu amateurs yi dinañ xam ni carrément kat mbër bi si lii la ne ak lii ak lii ak lii loolu moom seen liggéey boobu rafetlu naa ko trop macha allah. kon jaajëf mbokk yi noonu lañ leen di tàggoo rek kii mooy rawaan de rawaan xanaa ñu bàyyi la nga tàggatoo rek. waaw di tàggatoo di nuyu nuyuwaale Pambay di nuyu grand Ibou di nuyu Gaston entraîneur xam nga waaw di nuyu waa équipe bi yëpp di ñaan suñu borom xam nga may ñu ay combat may ñu ay ndam ñu daanu ñu ngi leen di encouragé ñu ñëwaat nekk si entraînement yi xam nga dina wax yoon xam nga di nuyu waale sama sëriñ maam Thierno borom Daaru Noreyni di yeesalaat sama njëbal si moom di ko tàllal samay loxo mu ñaanal ma xam nga parce que yoon ma nekk lëndëm na bëri na xaaxaam da nga koy ñeme dem ñeme woo ko doo dem waaw sëñ bi nag maa ngi koy tàllal loxo mu ñaanal ma si yoon bi ma ne suñu borom muccal ma si si barke Seydina Muhammad a alayhi wa sallam di nuyu sama waajur waajur bu jigéen encore une fois di nuyu waale waajur jigéen ñëpp xam nga di wax Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg jëli kontaan naa si yow bu baax a baax a baax di la bëggee wér a wér a wér di la di wax site bi nga nekk nii yal na kawe si site yëpp incha allah rabbi jërëjëf. jërë ngeen jëf mbokk yi dégg ngeen li nga xamante ni moom la rawaan de wax waaye yéen champion yéen ñu ñuy seetaan ngeen jàpp ni ci làmb kenn du leen seet si wolof daf ne mbaam gàtt na loolu waaye ci jur gi la bokk jël leen numéro boobu di feeñ ci suuf di affiché wu ci baar écran bi ngeen woote ci incha allahu rabbi dinañ leen seet si ànd ak yéen waxtaan ak yéen ci lépp loo xamante ni day jëmal làmb kanam jaa ngeen jëf ba ëllëg incha allah ci xew-xewu làmb. ndayam fi mag waa soga joot fi mal saax pir maake ndoki ndeeri ngel naa yaam cosaan naandu raptele layam fi magwa sogo joosi malsax pirma ke ndoki nderi ngel na yaam cosaan naandu raptele